لكم الصباح يلاحوا bil Mustafa sunni di Allah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex di ñaan yàlla mu nangu suñu koor nangu suñu naafila nangu mboolem lu ñu jëf ci weeru koor gi waaw mu mel ni dañoo nekk ci laylatul xadri kiy wax ak yéen mooy Mouhamad Mbeng dëkk fii ci Kër Moussa di doomu Kër Moussa incha allah fas yéene présenté thème bi nu war a traité tey war koo waxtaane incha allah ci laylatul xadri waaw mu aju ci pàcc yu xaw a bëree bëree bëree bëri nag incha allah euh, nga xam ne mën nañoo jàpp ni bi ci njëkk euh, ginnaaw am mbégte lool ci mboolem koo xam ne teew nga fi te dund guddi gi rek tax te euh, xeeñtu yiw rek tax incha allah ñu dalal leen tatagal leen ponk bu njëkk bi nga xam ne am nañu yéene yaatal ko mooy lu tax laylatul xadri lu tax laylatul xadri njëkk tamit waaye ci yoonu murit lu tax ñun ñu koy dunde muy muy varié ci bis bés bi di dellu ci bés bee lu tax waxtu nekk muy muy nekk alxames maanaam guddi àjjuma lu tax itam muy tool loolu yëpp incha allah moom moo nar a doon sunu jataay bu njëkk euh, incha allah ñu fas yéene ko waxtaanee bu ko defee ñu ñu ñu ñu ñu leeral lu bare bare bari ci li nga xam ne ndax bëri waa na koo xam ne mu ngi màggal bës wala muy màggal guddi wala mu koy dund di ko yëg waaye nag illa ja xamu ko te li ci am solo موي وكل نخص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا rattalnaahu tartilan noonu la ko alquran indee baada auzu billahi min asheytaani rajim alquran bu lay nettali mbir mu fi jaaroon ngir bëgg jullit yi jël ci misal jullit yi tamit xamne li fi bàyyi won ci ginnaaw mën na répété wu ci kanam bu ko défé ñu bàyyi ko xel kon loolu motax ñu bëgg léral bu baaxa baax aslu bi mu am ci lan motax ñuy laylatul khadri euh diko def at mu nek bésub alxames maanaam alxames ci guddi lu tax ba ñu ko dalee def ba lola loola lay doon lu tax itam muy tool te lu tax itam bés yi du doon bés bu ren comme nim nim nim mu dau, mu doonee daaw allah moom lañ bëgg a traité bu ko defee jullit ñëpp ak mboolem ku teew ñu gindeeku ci loolu ñi xamoon gën cee dolliku loolu mooy suñu yéene mooy ponk bu njëkk bi. kon mu mel ne dafa amaat amaat na ñaareelu ponk ndax guddi dafa nar yaatu incha allah dañoo nar a waxtaan ak mbokk yi bu baax a baax. ñaari lu ponku bi moy serigne touba ak alquran serigne touba ak alquran euh, ku wax koor wax alquran ndax شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القران موكو واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نتلي نكو ني يالا موني شهر رمضان باركل ناكو ندخ سي موم لا واتي القران دونت ايتام خري بدرك يمل نون يو بري بري ليله القدر ييب سي لا بوك واي نك درجه شهر رمضان موم القران سي لا بوك alxuraan boobu nag mag ñi nan lañ ko doon dundee lu ñu lu ñu lu ñu lu mot a la loo xam ne ñi nga xamante ne ay dundukatu tasawuf lañ euh, dañu daan jëfandikoo bu baax a baax alxuraan ndax moo nekkoon seen lépp euh, Sëriñ Tuubaa nag doon kenn ci ñoom koo xam ne euh, forme bi ñu jëlee di ko dundee laylatul xadri moo ñu ko jàngal moom moo ko daan def bind ci ay bayit yu am solo Euh, waaye itam dafa bëri lu mu daan wax ci alxuraan wax na lu ne ci alxuraan nee na alxuraan mooy sama nangam mooy sama nangam mboolem lu mu mën a wax rek ba ci ba ci docteur bi muy fajoo alxuraan la alxuraan mooy ki may déeyaaleel alxuraan bu may dox moom laay àndal alxuraan mooy sama wétal alxuraan nga xam ne day wax ne bu ñu ko tëjoon ci kaso bu xat sax te mu man di jàng alxuraan yombalal na ko kon kaso boobu day mujj gën ci moom te yooyu yëpp bëgg gum bëgg alxuraan moo koy indi kon li mu bind lépp nag mënuñu koo dajale ci génn guddi waxtaane ko ndax xat na buñ ko doon waxtaanee ci weeru koor gi yëpp li mu bind ci alxuraan moom du jeex waaye dañ ci jukki yenn nat rek yoo xam ne euh, nga xam ne laytaay lay laltaay lay doon ci ren euh, bu ñu yàlla mayee bakken ñu mën di ko waxtaanee di ko yaatal bu baax a baax a baax incha allah mu mel ni comme yéen a ngi ñuy topp ci Kër Moussa TV ci njiital Abdoulaye Wade moom itam xam naa mu ñu développé dara dara ci wàllu xam-xam te ñaanaluñ ko. ndax am na ci taxawaay bu am solo am na taxawaay ci mboolem lu dëkk bi di dox mboolem lu gox bi di dox commune Kër Moussa gépp ba foo wax rek yëg nañu taxawaayam ci dëkk bi waaye itam mm, ëttu diine ji yëg na ko ëttu diine ji yëg na ko ba waxtu wu ne lépp lu ngeen jot ci xam-xam lépp lu ngeen jot ci ni dëkk bi di dundee ci wàllu diine muy ñi nekk fii ñi nekk diaspora ak fépp ci àdduna bi moom liggéey na ci liggéey bu rëy rey moom ñi mu àndal kon euh, munuñoo munuñoo munuñoo yaatal lu mel nii ci xam wala li ko nuru ak fu ko mën a waxee te moom ñaanaluñ ko waaw di sàkku itam mboolem rek koo xam ne yaa ngi koy déglu moom Abdullahi nga ñaanal ko ndax bés bi ak yu ni mel ndax am na yeneen bés yu nekk ci kanam yoo xam ne yooyu yëpp itam tasaare la cay def te moom mooy taxawee lu mel noonu kon moom itam à travers euh, nii ngeen ñuy dégloo moom itam dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw boo xamee ne incha allah am nañu yéene jàllale lii ñuy ñaan mbokk yi koo xam ne rek yàlla dogol na nga jot ci lii ngeen ñaanalal ñu ko bu baax ndax taxawaayam am na solo bu ko defee mu gudd fan fekke lépp ndax incha allah bu guddee fan rek diine ji dina gën a yaatu ci Kër Moussa ak li ko wër incha allah. mu teg téere bi daan ko tàgg. ci laal ko parfum. yaa kitaabal karim anta habib bind ci biir. waaw waaw waaw bëri na lu mu répété loo lu bëree bëri bu ñu demee ca li rabbin xafurin wax na kitaabun karimun min karimin mukarimin waxat ni kitaabun majidun min majidin mu majidin nga xam ne. day day xeetu tagg xeetu taggu tedd nga lay doon yoo xam ne maanaa yi sax mën nañoo nuroo waaye baat yi duñ nuroo ndax arab dafa riche arab dafa am mun naa def takraar ci maanaa te du def takraar ci kalima mun naa dellu wax li mu waxoon ci maana ci déggin waaye te du ko répété ci kalima maanaam wax leneen lu ko nuru moom itam yu bëree bëri téere bu dugg rek bu bu boobu Serigne e ba muy jeex wala ci digg ba tagg na fa alxuraan fu mu taggee yonent bi sallallahu am na nag yeneen téere yoo xam ne Euh, téere tasawuf la yéen ñii téere fiq ak tawxiid sëriñ bi da koy bind diggante euh, murit bi diggante jullit bi ak boromam waaye yi mu bind yëpp muy bàkk yàlla wala tagg yonent sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa dina ci tàgg alquran waaw taxawaay boobu la amoon sëriñ Tuubaa mësula nangu ñi koy saytul alquran tàqalikoo moom nga xam ne waxtu wenn waxtu rek la tàqalikoo ñoom maanaam jenn jamono mooy jamono ji mu moomatul boppam ci nekk ci réew mi ci doxal li mu bëgg ci réew mi mooy ñu jël ko exilé ko loolu rek wax na wa is yamkuru eh, li alquran di wax da ko doon répété lu bare bare bare bëri wa is yamkuru alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allah wallahu xayrul makirin dama la wax ne man de yonent bi dama ko nuru ci ñetti mbir yi bi ñuy wax ne dañ koo war a génne wala ñu rey ko wala ñu tëj ko nee na yooya bu ma ci amoon xam naa ne dina ma gënal waaye itam buñ ma tëjoon mu doon xalwa ci man boo xam damay wettali ko alquran yooyu yëpp yu mu daan wax la yoo xam ne mën nañoo fàttaliku sax bi mu nekkee lambar na ñetti at yu manqué yam def lambar na ginnaaw bi mu jógee Mayomba diir boobu mu fa def wax nañ ne li muy gën a fàttaliku ci lu metti ci moom mooy ba mu taw tawtee taw bu metti ba te ay téeréem amul fu leen fat waaw téere alxuraanam nga xam ne loolu loolu lu kéemaane la loo xamante ni nii tolluwaayu alxuraan moo mel ci moom nga xam ne ba mu dawee ak bay rawale téere yi mu yoroon mu ngi dugg ci euh, benn mbaar moo xam ne ka fa defoon nappkat la woon ci dexu lambar na googu kooku bi sëriñ bi ñëwee moom benn néeg rek la yor bu muy denc bu muy nekk ak soxnaam ak waañ wa keroog sëriñ bi ci waañ wi la fanaan ngir mën a rawale alxuraan jooju waaw loolu nag tolluwaay la mën nañu cee xam itam ni dëkkam bi mel muy Touba ndax day wax lu bëree bëri ni yàlla li nga gën a bëgg ci lu nit mën a dégg ci nopp alxuraanu karim la maa ngi lay ñaan alxuraan jooju yàlla nay sax Touba maanaam waxtu wu ne yàlla nañ koy dégg Touba waaw loolu nag moom ku ne xam ne ne suñu borom nangu na ñaanam waaw ndax euh, Touba li fa gën a am solo li fa gën a am solo te gën a symbolique li fa gën a am solo te gën a symbolique te mu doon mandargam Touba mooy xiyaamul layaal yi ak nawaafili kaamil yi waaw nga xam ne jàkka lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw kaamil la ñuy naafila te loolu ko wattuwul alxuraan mënu ko te ñooñu ñëpp ci njabootu sëriñ bi lañ bokk yoo xam ne sëriñ bi moo leen moo maanaam ginnaaw bi ñaanu sëriñ bi nangoo sëriñ bi moo leen defar ci loxoom incha allah waaw sëriñ bi nag ci jëmmi boppam li koy misaal rek mooy euh, caatam mii nga xam ne mooy soxna euh, ndeysaan soxna may ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu bu baax di siyaar mboolem rek koo xam ne njabootam ga tey dundal guddi gi ñoom ni ko Serigne Touba dundee moom lañ ko daan dundee leen mooy wéy di wéetal yàlla ak fàttaliku lépp loo xam ne ay jeexit la yunus sallallahu alayhi wasallam yoo xamante ni nii ci yàlla subhanahu wa taala la jóge ci jàng alquran waaye itam di waare waaye itam di def ay azkar di fàttaliku lépp loo xamante ni nii bëri na sax lu ñuy wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, dafa daan wax ne guddi googu na ngeen ci bari lu ngeen wax ne allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna waaw sëriñ bi lu mu ku bari lu mu daan zikkar loolu la ci laylatul xadri waaye nag day koo xam ne xëy na yokk ak jaamu yàlla la ñuy xamee bés bu màgg ci moom waaye moom bés yëpp bési jaamu yàlla la ci moom bés yëpp bési jaamu yàlla la ci moom neen bi sallallahu alayhi wasallam daan sant saxaaba yi ak njabootu saxaaba yi ñu koy def ci taxawal mbollem wéru koor gi non la ko serigne bi daan taxawale mbollem wéru koor yi waye dafa daan gëna bari lool ci fukki fan yu mujjii ndax loola dinkane yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom la won الحمد لله الحمد لله alhamdulilahi awalum bila bidaaya alhamdulilahi axirum bila nihaaya loolu dañuy sant yàlla li koy firndeel Serigne Touba loolu la ñu jàngal waaw Serigne bi loolu la ñu jàngal ndax moo waxoon ne kullu wirdin yuridul murida li xadaratil ilahi walan yuxiida lim na si wan tama li Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani aw in tama li Cheikh Ahmad Tidiane aw li si waahuma min al axtaab Serigne Touba loolu la ñu jàngal Serigne bi pour fàttali rek bind na téere boo xam ne ñooñu ñëpp la ci way téere boobu ñuy wax xuqal bukaa ala saadaati am wa tabkil aradi alayhim ka samawaat pour fàttali la tuuti rek Euh, ki yor wàllu organisation wu taalibe cheikh yi sopp sëñ Babacar biñ nekkee réunion bu mujj la woo jëwriñ téléphone ne ko mboolem lu ngeen soxla ci matériel loolu yëpp disponible na moo man mën na fee yàqoo ndax programme kenn xamul nu muy nu mu jeexe te dañoo am programme ci ñaari fan ci kanam waaye dañuy wane ni lépp ñoo ko bokk te ci ñun suñu ni ñuy jàppee laylatul xadri waxtu weer wi feeñee ba sub dimanche waxtu bu ñu njëkkee woor ba sub dimanche ñoom ñun kon kasin la ñuy la moom la ñuy laylatul xadre bu boobaa ñoo koy bokk te de te yàgg nañ koo bokk te dañ koy bokk muy rafet ni ki ñoom waaye ni ki mbooleem kuy jullit kër Moussa mbooleem kuy jullit kër Moussa mbaat bu su amee lenn lu fi xew loo xam ne murid yi taalibe Serigne Touba yëg nañ ko lay seen wareef mooy lii nuy def mooy bokk koog ñoom fi mu dooree ba fi muy jeexee Serigne Touba loolu la ñu sant ndax loolu la daan dund nit daana ñëw ci moom yor werd tijaan wala bu wala bu wala bu bu fu mu mën doon boo ñëwee ci moom dafa lay laaj ndax yoroon nga wenn werd wu bokkul ak wii nga doon jël boo ko ne waaw mu ne la jàpp ko bu dëgër namel ni maa la ko jox waaw ndax Serigne Touba werd yooyu yëpp jëfandikoo na ko te am na ijaasa di ko joxe loolu yëpp day wane ne rek euh, tool bi benn tool la mooy toolu yàlla benn patron am moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci bay ci toolu lislaam nga bay dañuy góorgóorlu nag fexe bay saw sas bay sasu jàmbur moo gën di ñaan sasu jàmbur booy waaw te loolu mom benn julit du waré fu benn julit moo tax nii ñu koy dañuy ñaan yalla ñu déma déma dem ba ay junniy ak ci kanam Kër musa di gëna dundé non lu am solo la tay ji dinañ yenn saa yi programme dina am bu xat lol waye ñenn ci ñenn ci ñun julit ñi ño naan bu fekkee programme bi dafa xat bayi len ñu fété ci liggéey bi te bayi len gën wéyal xam nga loolu dafa rafet ñu ngi ñaan yalla mu defal taw fee ci loolu. macha allah waaw waaw xam nga. Abdallah yow waroo ñu waroo ñoo sant ñun ñoo la war a sant di la gërëm ndax waxtu wuñ la soxlaa waxtu wuñ soxlaa sa télé bi waxtu wuñ soxlaa sa mbooloo dañuy ñëw def liggéey bu extraordinaire li koy firndeel mooy waxtu wu euh, vidéo yu duggee wala lenn lu jëm ci wàllu diine nga dugal ko fu nekk lañ ñuy woowee ci àdduna bi te loola sa liggéey moo tax kon ñun yow waroo ñoo sant dañ lay ñaanal yow ginnaaw bi ñu la santee dañ lay ñaanal nga yàgg fi lool li li li gën a yombal sa liggéey nag dama koy wax fu bari fo xamanteni Abdallah yu neko fa moy sa woyof ligey la bo xamne bo boo do ko man te yow njëkk lolu ci woyof lañ la xam motax ma sha allah wax deug yàlla li dëkk bi di xaar ci yow yaa ngi def lu ko fawxa dañ lay ñaanal rek li ñuy ñaanal mbolem ñu nekk ci dëkk bi da amal dëkk bi njariñ mom lay ñaanal mom lañ lay ñaanal moy guddu fan insha allah ndax bo guddé fan rek njariñ li dinañ ko yàgg gis insha allah إن أريد إلا الإصلاح ما al islaha ma إلا بالله tawfiqi illa billah باي mel نيويل dañ leen di bàyyi rek ñu الله بالمسمى سنيدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى صالح خضر وبصعب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس يزيح وزكيا يحيى